boo koy mbokk yi xeexu bu rëy moo am fii ci Kër Massar cité Sotrac ginnaaw ba trois heures di matin jotee fii ci pharmacie Sotrac bi ci la ay samba booy daal di ñëwee fii doon ko koo dajji waaye ginnaaw ba la ko euh, ñenn ñu doon garder ca koñ ba daal di déggee buri ba daal di yuuxu wallu mm, waa koñ ba daal di génn ñu daal di daw ñoom nag euh, nekkoon nañ samba booy yooyu nekkoon nañu ñu ñu bëri waaye nekkoon nañu yoroon ay armes am na kenn kuñ ci jota gaañ. ci tànk ba ñu ngi koy yóbbu noonu euh, fii la xewee fii ci Kër Massar ci Sotrac ci pharmacie bi ay samba boy ñoo doon dajji fii ci pharmacie Sotrac ba gannaaw ba nag kenn moo si jot a am gaañu gaañu kon mbokk yi mi ngi noonu.